sa gis-gis euh, jëmale ko ci euh, alliance bi nga xam ni judd na nag euh, léegi yàggul tuuti muy PDS ñëw rejoindre ki nga xam ne nag moo di coalition Diomaye ginnaaw bu nu invalidé seen candidature tey jii lan nga mën a indi comme jàngat si soutien bi PDS amal jëmale ko si coalition Diomaye président. waaw dañuy rafetlu taxawaayu PDS. ci situation bi parce que réew mi moo ko laaj. Mhm. gis nga dans dix ans histoire dina interpeller ñëpp. ku nekk ban taxawaay nga amoon ci situation bi. donc lii day rehausser mhm. image u PDS. man PDS maa ngi ko xam 74 man 73 laa commencé politique. Mhm. parce que sama nijaay PAI la bokkoon. Mhm. mais après 80 laa dugg PIT 80. laa dugg PIT mais gënoon tax ma dugg PIT mooy Maguette Thiam. Maguette mais ci loolu. PDS dafa ñëw xeex pour vraie démocratie def ay sacrifices yoo xam ni kenn la ko donc biñ nekkee opposition véritablement pedes ah. Mhm. mën nañu wax ni joué nañ lu rôle te histoire du fàtte rôle bi PDS joué de 1974. Mhm. bien que parti de euh, kii la euh, parti naka lañ koy waxte encore euh, saa yi nekkul woon parti d'opposition réelle mhm. mais da doon jàppale pouvoir bi parti waaw mais à partir de quatre-vingt mhm. ba deux mille PDS def na loo xam ni jàlloore ci histoire politique moom ak les pôles la euh, ça le pôle de gauche ak yenn force yi lu mel ne MSU bu mam kii Mamadou Dia mhm. dégg nga ak ñeneen ak ñeneen donc nag ñun dañuy jàpp ni PDS quand même mu ngi redoré waat blason image am mhm. waaw ñeneen ñëpp dañ leen di woo parce que tey Sénégal moo laaj loolu naka la ñuy ba Sénégal yëpp ñu juboole leen. Hmm. cest à bi nekk Ousmane Sonko ak Diomaye. c'est important waaw alors ci euh, coalition boobu aussi euh, ñu ngi xaarandi euh, kii di président Bougane Gueye dani moom aussi mu joxe ana rek lay jàppale ci élection yi waaye daanaka depuis bu mu annoncé dina joxe position am ba des na ay heure rek ñoo des pour ñu àgg ci li nga xam ne nag mooy les scrutins jusqu'à présent kenn xamagul Bougane ana lay jàppale est-ce que yaakaaroon dafa nekk def li nga xam ne nag moo di calcul politique wala lan moo tax jusqu'à présent nangul wax lay jàppale waaw donc ñaari choix la bëggoon am. Hmm. soit ñëw ànd ak peuple bi xeex walla histoire dina ko placer ci fi nga xam ni moom la ñi def histoire yi gën ñaaw Sénégal foofu la ñu parce que fii Sénégal dafa am ñoo xam ne ils ont écrit en hmm. lettres d'or les plus belles pages de l'histoire du Sénégal. Hmm. tey xale yi ñu rey nii ci lañ bokk. Mhm. xale yi ñu jàpp prison ci lañ bokk xale yi ñu laagaloo ci lañ bokk histoire dina bind ne en deux mille vingt trois non deux mille vingt et ba deux mille vingt quatre mhm. ay jàmbaar ñoo taxaw pour sauver Sénégal. Mhm. léegi nag su ko buggaan buggaan soit day rallier peuple bi. wala mu def ni Djibo Ka defoon en deux mille en deux mille. Djibo dafa àndoon ak ñun. ba dernière minute mu rétracté wu dem ne day jàppale ab du Diouf te loolu dañu toogoon waxtaane ko hmm. opposition bi yëpp opposition dañ ni woon kandidaa bi gën placé wu bi dem deuxième tour ñëpp moom la ñuy jàppale mais Djiboka aussi borom xam-xam la man damay wax ni yore état am na ko hmm. mais calcul politique moo ko rayoon moment boobu hmm. moo tax ba léegi loolu dañ koy boole ci histoire du Sénégal mhm. taxawaay bi nit ñi amoon en 2000 taxawaay bi nit ñi amoon 2012 la même chose mhm. bii nag moo gën garaaw parce que bii képp ku def erreur calcul mhm. ah yi dañ fa la ñuy jaar daf la croix moo tax dañuy nuyu vraiment ku mel ne Abdourahmane Diouf ñoom Serigne Gueye Diop ñoom Mimi Touré courage bi ñu am pour ñëw renforcer le camp du peuple waaw. kon da yaakaar ni Bougane si calcul boobu la nekk ba tey. xam nga xam nga Bougane. Mhm. Euh, man de mënuma ko conseiller parce que man na am am na lu mu gis gisuma ko. Mhm. mais ci sama expérience bu ndaw mën naa wax ni. Mhm. que ak lu mu mënti def. su ñëwul. génne bokk ci ñi génne Sénégal ci jafe-jafe yi. Mm-hmm. maanaam coalition Diomaye. coalition Diomaye mm-hmm. dina gis loo xam ni dina bëgg a wax ak sénégalais yi pendant longtemps sénégalais yi dañ koy fàttali li mu def. maam day ñàkk crédibilité. waaw mm-hmm. moom moo tax man euh, li ma ko mën conseiller mooy. na ñëw jàpp ci xeex bi. fii ak deux mille euh, élections yii di ñëw. Mhm. ak yu demee noonu image am day gën renforcer wu. Mhm. mu gën peser. parce que waaw vraiment. Mhm. nu daal di xaar rek euh, moom Bougane kañ lay joxe position ak euh, kan lay alliéewal si li nga xam moo di élections yi père dernière question est-ce que nga élections yi dina jeexee si premier tour. waaw très bien xam nga man politique. kenn gënuma ko xam. non école bi ma jàngee laal muy mhm. PIT parce que quand ak lu ñu mënti wax man de su may conseillé euh, ku mel ni Sonko wala Diomaye dama leen di nii nañu créer école du parti mhm. comme ni ko parti de gauche yi doon defee former seen militant nekk des militants aguerris n'est-ce léegi nag loolu su passé mhm. tey foo dem ci Sénégal baat bi benn la ba coin yi gën reculer mhm. sénégalais yi changement lañ bëgg te changement bi Sonko di incarné moom lañu gën bëgg mhm. dëgg la man am naa lu bari lu ma war a wax ci programme mhm. bon am na point yoo xam ne mën naa ci bañ ànd ak Sonko lu mel ni monnaie ak yu waaw mën naa ci bañ ànd ak moom mais dama bëgg wax ni que tey li ëpp solo ci Sénégal sénégalais yi li ñu bëgg mooy ñu moomaat seen bopp. Mhm. ñu delloo pouvoir bi peuple bi comme ni ko Lénine waxee woon. Mhm. le pouvoir bolchevique képp ku déglu premier discours Lénine bi mu ga bi ñu daanee euh, zar bi. Mhm. dafa ñëw ne euh, aux bolcheviques. nous nous sommes toujours battus et nous avons toujours senti la nécessité de rendre le pouvoir au peuple. donc xeex bi yëpp moo doon rendre la pouvoir au peuple tey ci lañ toll. képp koo xam ne dirigeant politique nga war nga fexe. ba ñu delloo pouvoir bi peuple mais du ñu bàyyi une élite politique. accaparée au pouvoir yi. waaw moo doon suñu xeex ci constitution yi. ak yu demee noonu. waaw pour wàññi doole président de la république delloo pouvoir bi peuple. kon yaakaar nga ni élection yi dina jeexee ci premier tour. élection yi mën na jeex ci premier tour te moom laa gën yaakaar su fekkee ni rek ah. njaaj amul. Mhm. jaarale nañ jëpp yoon ma ni. Mhm. score bi gën mag. Mhm. xam nga dañ ne woon Ablaye Wade cinquante huit pour cent la jëloon. Macky Sall soixante cinq pour cent deuxième tour. mais bi premier tour mën na dem ba soixante dix pour cent soixante quinze pour cent premier tour. donc. yi yëpp laa ni dañu mobiliser wu def élection yi seen affaire mhm. élection yi seen affaire bu leen gis rek mobilisation yi waa Benno di def mhm. ñooñu booy yu bari dañ leen jox xaalis jigéen ñu bari dañ leen jox xaalis pour ñu dem mhm. loolu yàgg na fi ab Abdou Diouf loolu la doon def da doon mobiliser mais après élection yi bi mu ñëwee dañ ko daane Abdoulaye Wade la même chose élection yi bi mu ñëwee dañ ko daane donc du loolu moom mooy kii waxtaanal ak Sénégal yi nga nga gis sénégalais ñoo bëgg bëgg gaaw a débarrassé wu ci parenthèse historique bi nga xam ne fa la leen dugal très important jërëjëf euh, Baye Ahmed Habib Camara macha allah waxtaan bi amoon na solo trop mbokk internet di aussi euh, kontaan bu baax a baax ci disponibilité bi ak ñëw répondre sunu invitation pour ñu waxtaanee lii di situation réew mi ñu ngi lay jaajëfal lu baax a baax. macha allah yow tam ñu ngi lay sant. di ñaan yàlla. Mhm. yàlla jàppale ñu ba jàmm am ci réew mi. amiin ñu mën traverser élection yi. Mhm. yàlla indi ñu jomaay. Mhm. fay. ba ñu redresser suñu réew. beneen bi aussi.